jërë ngeen jëf mbokk yi internet yi Allô Sénégal gannaaw bañ leen nuyoo rafetlu ni ngeen di àndee ak suñu chaîne bi ngir informé wu lépp rek lu xew ci réew mi ak ci bitim réew euh, seen acte du jour nag tey dañ koy doore ak match bi war a dox ci diggante Sénégal ak Rwanda euh, loolu nag ni ki tey lay doon gannaaw 19h bu jotee euh, ci loolu nag Rwanda sax moom moo waroon a dalal Sénégal waaye nag gannaaw seen stade ba nga xam ne moo nekk foofa ci réewum Kigali mujj ñu ko homologué loolu nag tax ba ki ñii nag ci stade euh, Diamniadio maître Abdoulaye Wade euh, ni ki tey nag la match bi 19 heures bu jote xanaa rek di ñaanal suñu gayndey euh, yàlla may leen ndam ci bile match des rek ci match Sénégal bi bi yoon nag match bi génn la ñuy daal di waxtaane muy Sénégal rek ak réewum Bénin ku ne xam na ne nag Sénégal moom moo ci jëlee woon ndam daal di dóor rek réewum Bénin ñetti bal ci benn ci loolu nag gannaaw lenn rek lu ñu mën a nemmeeku ci match boobu amoon na fa ay altercation loolu nag mu ngi doxoon ci ñi nga xamante ne ah, moom moo di gendarmerie ak police mu nekk ab jàmmaarloo bu métti ah, ci loolu nag ñu mën a jàpp sax ne benn lieutenant ah, nekk sax ab élément GIGN moom moo daal di jote rek ak commandant GMI ci loolu nag liñ ci mën a jàpp mooy ki nga xamante ni sax moom moo di lieutenant GIGN bi. dafa daal di bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa police sax dafa daal di violer rek liñ naan dispositif bi ci loolu nag moom gannaaw ba nga xamante ni sax élément gendarmerie boobu dafa bëggoon a rek à l'intérieur ci loolu nag ki nga xamante ne moom moo di euh, policiers yi daal di koy empêché euh, ci euh, loolu nag mu daal di sax jote ak ki nga xamante ne moom moo di commandant gémi bi daal di koy dóor rek bant ci bopp ba moom nag mu daal di ci jëlee ay gaañu gaañu ba ñu yóbbu ko ca l'hôpital ba noppi daal di confisquer rek li nga xamante ni sax moom moo di beere bi ak téléphone kii nga xamante ne moom moo di euh, jiital GMI euh, ci euh, loolu nag liñ ci mën a jàpp rek mooy gannaaw ba nga xamante ni sax mënoon naroon na jur coow lu rëy ci diggante gendarmerie ak waa police ci loolu nag mën nañ wax ne daanaka problème bi daal dinañ koy régler ca na mu gën a gaawee ndax kat ñi nga xamante ni sax ñoom ñooy élément bi bi mu nekk sax ab koor boo xamante ni ñoom ca police dañu fare ak ñi nga xamante ñoom ñooy waa GIGN fare foofa ca gendarmerie daal dinañuy trouver rek terrain d'entente waxtaan naat seen biir daal di récupérer rek li nga xamante ne moom moo di téléphone ba ak beere bi nga xamante ni kii di lieutenant GIGN bi daal dina koy confisqué woon des ci matchu Sénégal yi ba tey ki nga xamante ne moom moo di Sadio Mané moom nag gannaaw ba xamante ni euh, c'est une fierté nationale di amal liggéey bu am solo fii ci euh, équipe nationale euh, moom nag gannaaw ba mu defee rek entraînement ma bu mujj dal di nay rek dajeek ab fansam ci image yi fans bi ngeen di gis noonu mu daal di kott Sadio Mané rek di jooy wane mbëggeelam ak cofeel gi nga xamante ni am na ko ci kii di Sadio maane waaye nag Sadio Mané xaarul dara ngir rek daal di jël numéro fans boobu noonu ngir rek contacté ko euh, ci euh, loolu nag moom la ñuy gis noonu ci image yi moom mi nga xamante ni fans Sadio Mané la euh, dal di koy corte ak drapeau Sénégal bi nga xamante ni sax moom la sol wanewaat cofeelam ak mbëggeel bi nga xamante ni daal dina koy am ci doomu Sénégal bi di Sadio Mané mariage Billy ak Marichou la ñuy waxtaanee ñoom nag gannaaw ba nga xamante ni euh, ku ci nekk rek yaa ngi doon wax naan dëgg la wala dëgg léegi nag mën nañ jàpp ne euh, c'est officiel Billy ak Marichou daal dina ñuy marié euh, loolu nag ñu ngi ko amal foofa ca diwaanu Thiès ci mariage ba nag liñ ci mën a jàpp coow yu bëri daal dina ci jub bokk na ci influenceur bi di Adamo moom nag gannaaw kaddu yi nga xamante ni daal dina koy yëkkati rek ci premier kaddu bi nga xamante ni kii sax di Billy moom la ñu wax ne moom la jox Marichou mu tolloon. na ci sept millions ak li nga xamante ne moom moo di ay terrain euh, li ni mel muy euh, euh, ni sax moom lañ mën a jàpp mu ne bi nga xamante ni jot nañ ko publier moom yàgg naa téye ay millions ba mu ko xoolee xam na ne xaalis bi matul million yi nga xamante ne moom moo di Adamo daal dina ko yëkkati ni ki démb nag gannaaw ba nga xamante ni sax daal dinay dugg rek ci ab émission muy fësalal rek ay kàddu di wax rek ci li nga xamante ni sax moo di mariage boobu mu mel ni nag moom Adamo noppiwul benn yoon bi mu ngi wax rek daal dinañ koy jox rek kii di Marichou ak terrain yi muy jàpp ne sax loolu amul loolu nag nekk ay kàddu yu ñaaw yoo xamante ni daanaka rafetlu wuñ ko dara ci ki nga xamante ni sax moom mooy ñaar ñu bëggante ba daal di sëy ngay yëkkati ay kàddu yu ñu mel di ko ci teg bokk na sax ci rek di weddi li nga xamante moom moo di koppariñ ko jox waaye tamit dem sax ba ki nga xamante xamante ne moom moo di yaayu uh, kii di uh, Marichou àndul ci bile sëy loolu nag nekk ay kàddu yu ñaaw yoo xamante ni uh, kii di Adamo daal dina koy yëkkati rek jëmale ko ci diggante kii di Billy ak Marichou beneen coowu mariage muy Sadio Mané ak ki nga xamante ne moom moo di Zeyna Ndour loolu nag gannaaw li nga xamante ni juróon na ko fi waaye nag yu wér yi nga xamante ni am nañ ko dara amul seen diggante ñoom ñaar marié wuñu tey marié wuñu ëllëg ci loolu nag ñu mën a jàpp rek ne ki nga xamante ni sax moom moo di Zeyna Ndour gannaaw coow li nga xamante ni judd na ci digganteem ak Sadio Mané ki nga xamante ni nag moom moo di yaay ji di Viviane Chidid li ñu nemmeeku rek ni ki démb ci compte TikTok am muy publier rek ay vidéo ak ay photo Zeyna yu rafet lool moom ngeen di gis ci image yi noonu mu nekk ay photo yu taaru yoo xamante ni kii di Viviane Chidid ah, daal dina koy publier rek mu nekk ay photo Zeyna a gannaaw coow li nga xamante ni sax juddu woon na ci diggam ak kii di Sadio Mané animateur bi nekk ca télévision Futur Média Aba No Stress lay wuyoo moom nag gannaaw ba nga xamante ni sax Sénégal dalaloon na fi Égypte ak sax coowal laser yi nga xamante ni daanaka nemmeeku woon nañ ko lool ci turbine bi ci loolu nag moom Aba daal dinay génnaat rek def vidéo di artu wala sax di sensibiliser rek jeunes yi nga xamante ni ñu ngi wéy di utiliser yi les laser ci loolu sax moom muy wax nek ne laser yooyu mën nañu jural musiba ndax kat am na équipe yu bëri yoo xamante ni daal dinañ leen sanctionné rek jëm ci di perturber rek nga xamante ne moom moo di équipe adverse bi ndax kat match bi ñu génn muy Sénégal ak Bénin dañoo nemmeeku rek ne am na ay supporters yoo xamante ni ñu ngi yoroon rek yi les laser ci kaw tribune bi di ko teg jour yi loolu nag Abba rafetlu ko dara gannaaw vidéo ba mu def rek di sensibilisé ñi nga xamante ne ñoom ñooy def jëf ji ni mel. kaawteef la ñuy wax ab mara sax wala faux marabu lañ ko mën a duppe moom nag daal dinay jóge Sénégal rek dem foofa ca diwaanu Gambie waaye nag liñ fa nemmeeku mooy moom nag dafa daal di ëmbal rek juróom-ñaar ci ay xale yu jigéen ci loolu nag mu daal di nekk lu doy waar gannaaw ba nga xamante ni sax am na video buy circulé ñoom rek ñuy def témoignage di wax ci jëf ji mel ci ñooñu sax jigéen ñi ñu mën cee jàpp ñoo xamante ni am nañu borom kër ak ñi nga xamante ni sax ay étudiant lañ loolu nag am na ci sax ay commerçante ñoo xamante ni ñoom la def fa jëf ju ni mel gannaaw ba nga xamante ni sax ñoom dañoo ñëwoon ci moom rek ngir mu ñaanal leen waaye nag mu daal di ne seen xel def leen jëf ju ni mel waaye nag ba nii kenn gisu ko kenn tegu ko bët. kii di Maty trois Pommes dal dinay génn rek def vidéo loolu nag mu ngi jëmma ci coowal kii di Ousmane Sonko ak aji Sarr ak li nga xamante ni sax moom moo di coowal massage fii ci Sénégal moom nag Maty trois Pommes gannaaw vidéo bi nga xamante ni def na ko muy waxaa rek ne am na keneen koo xamante ni sax Aïcha lay wuyo mu ne sax tur boobu dañ ko koy wooy rek waaye loolu du turam dëgg waaye du fësal li nga xamante ne moom moo di turam dëgg muy xamle sax ne kii di Ousmane Sonko dafa dal di rek nekk ak xale bu jigéen boobu te teewul sax mu ngeek ñaari ñaari jabaram moom nag muy fësal rek ne ci période élection locale yi ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko dafa jël rek appartement foofa ca diwaanu Ziguinchor xale bi di Aïcha lool nag muy faral rek moom Ousmane Sonko di nekk foofu loolu nag di nekk ay révélation yu doy waar yoo xamante ni kii di Maty Trois Pommes daal dinay génn def ko ci njiital Pastef bi di Ousmane Sonko des ci Ousmane sonk moomu ba tey moom nag gannaaw ba nga xamante ni sax nit ki euh, suba ñu tuddee ko mercredi de tous les dangers loolu nag nekk ab manifestation boo xamante ni rek fas yéene nañ ko amal ngir rek daal di aar suñu démocratie ci loolu nag liñ ci mën a jàpp mooy Ousmane sonk moom gannaaw ba nga xamante ni daal dinay janook taskatu xibaar yi euh, muy wax sax ne moom soxlawul dara ci nguur ndax kat euh, salaire bi nga xamante ni sax ñu ngi ko ko doon fay doywu ko dara da koy joxewaat rek du carburant du dara loo xamante ni soxla na ko ci nguur lépp lu muy def rek da koy def te yàlla tax waaye moom Ousmane Sonko rek yokku ci ne gannaaw manifestation bi nga xamante ni kenn du te ñu daal di koy amal moom sax muy fësal ne way juróom bu jigéen daal dina koy woo ah, di ko wax rek ne ko ndax Ousmane ñibbiseego fii ci diwaanu Ziguinchor waaye moom nag li mu wax jur bu jigéen bi rek daal ne ko ah, tànk manifestation bi jeexul du ma ñibbisi ndax kat ah, lii ñuy xeex ni pour askanu Sénégal yëpp la moom Ousmane Sonko sax kaddu yooyu la daal di fësal gannaaw jano ak taskatu xibaar yi jeexalee ak kii di xamante ne moom moo di maire bu Guédiawaye di ay dara moom tamit daal dinay feelu Ousmane Sonko rek ci li ni mel loolu nag gannaaw manifestation yi nga xamante ni fas yéene nañ ko amal ngir rek sàmm suñu démocratie ci loolu sax moom maire bu Guédiawaye di Ahmed Aïdara daal dinay yëkkati ay kàddu rek di wax ne sans autorisation wala avec autorisation dinañu amal rek li ni mel loolu nag bokk na rek ci daal di sànni xeer ak ki nga xamante ne moom moo di njiitu réew mi di Macky Sall moom nag muy fësal ne kii di Macky Sall amul vision Euh, loolu nag bokk na rek ci yenn ci ay travaux yoo xamante ni sax euh, daal dina koy euh, door foofu noonu ca diwaanu jam Diamniadio moom nag muy fësal ne travaux yi sax ki ko njëkke woon di ki fi nekkoon njiitu réew di maître Abdoulaye Wade kon nag moom dafa jàpp ne ki nga xamante ne moom moo di Macky Sall amul benn vision te sax dafa nemmeeku ne ki nga xamante ni moom moo di Macky Sall képp rek kuy liggéey ci wàllum administration te nekkoo ci wetam dalay jéem a gàllankoor waaye nag bu fekkente ne ci wetam nga nekk rek mu gën la dooleel ngir nga jàppale ko bu baax ci politique bi muy def Ahmed Aidara yile kàddu la fësal gannaaw muy janook taskatu xibaar yi mbokk yi ñu doon teewlu ci seen chaîne Allô Sénégal lii lañ leen andiloon seen acte di leen ñaanal jàmm di leen ñaan ngeen abonné suñu chaîne bi te laal cloche notification bi bañ a raté dara ci suñu information jërë ngeen jëf